mbokki taalibe yi ginnaaw ban sante yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaajëfal sëriñ Touba ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo beeg ziyaar bi sëriñ Seex Sidil Muxtaar di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal sëriñ Cheikh Mamadul Muntaxa Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ñu ngi am mbégte di delsi ci jataay yin baaxoo ànd ak yéen ci ajjuma yi weer wu tedd wi di weeru koor wi ci bërëb bu tedd bii di jumaayi Cheikhul Xadim ci boqaatul mubaaraka comme ni ko sëriñ Bay waxe rek tey ñu ngi tànn tom bu am solo muy diggante sëriñ Touba Xaadim Rasul ak yonante bi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy diggante bu jege mel ni li arab di wax mudaaf ak mudaaf ilay ndax boo nee xaadim rek rasulillahi rek nga ci teg muy xaadimu rasul kon diggante bu jege la ñu tànn boroom xam-xam bu ràññee xam-xam ràññee yaram ràññee tegginam rawante na fii ci njaareem muy sëriñ Mokhtar Faye mu sëriñ Saaliw nga xam ni sëriñ Saaliw moo ko defar def li nekk ci moom ci xam-xam ak yar ak teggin ba tax na sëriñ Cheikh Mamul Muntaxa mi nga xam ni xam-xam rek moo ko ñor eh, jox ko ndigal muy jàngale ca jumaa yu Daaru Minam ci ca Touba dafa jàngale xam-xam àllarba ak alxamis ak ajjuma loolu ngir xam-xam ñor gum ko ñor sëriñ Muxtaar moomu moo nu war a eh, defal waxtaan wi ci diggante cheikhul xadim Cheikh Bamba ak rasul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy yëgal mbokki taalibe yi ni ku ci am laajte boo xam ni jëm ci li ñuy waxtaane mbokk mi sa sëriñ Saaliw Ngunda Fay mi ngi fi dana ko jël eh, boroom xam-xam yaa ngi fi ci mel ne sëriñ fallu Dramé incha allah lu fi yorul rek danañ ko kàttanu yàlla danañ ko jéem a tontu ñuy sàkku tam ci mbokk taalibe yi laaj yi bañ génn tom bi ñuy waxtaane muy sëriñ Touba ak yonante bi sallallahu alayhi wa ba tey euh, tom bi tam comme ni ko sëñ bi waxee sànq mi ngi wax ni ku am laaj booy laaj sax mu génn tomb man nga nga see accès laaj ko bu soobee yàlla incha allah borom xam-xam yaa ngi danañ ci danañ ci danañ ko tontu kon xam naa ngir bañ a guddal rek ci waxtu wi dañuy daal di dugg ci waxtaan wi ñu jox sëriñ Muxtaar mu agsi ak ñun ci tom bu am solo bi nga xam ni moom la ñu indil kon ñu ànd ak ak teewlu bu baax a baax diglu ko. Eh, fas yéene jariñu ci waxtaan wi nga xam ne moom la ñu fas yéene indil bisimilah sëriñ Muxtaar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 ginnaaw bu ñu sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sëriñ Saliou di ñaan yàlla yokk ay leeram te dolli na ko fayal di ñaan Cheikh Sidiel Mokhtar sunu borom yàggal ko fi te may ko ak wér di ko ñaanal mbooleem njabootug sëriñ Touba gi di ko ñaanal mbooleem njabootug lislaam gi ak fépp fu ñu mën a féete di jël gën gaa tedd siyaare ak i nuyoo di ko jagleel kilifay jataay bi di sëriñ Moustapha Mbacke Abdoul Wadoud ak sëriñ Baara Jaxate ak sëriñ Abdoul Aziz Baaz di doglu ngante ci tomb bi nga xam ne moom lañ ñu jox tomb la boo xamante ne xëy na dañ ci barkeelu waaye du lees mën a waxtaane ndax xam-xam yeggu fa te doomu aadama jotiwu fa li taxi ñu tànn ko itam mooy ne dañoo gis ne sëriñ bi radiyallahu taala anhu li nga xamante ne indi na ko bi mu ko indee ñëpp dañ doon bàyyi li ñu nekk di ñëw di ko wut si ñañ xamoon jàngale alxuraan ñëw ci moom ñiñ xamewoon jàngale xam-xam bàyyi la ñu nekkoon ñëw ci moom fenn fu nekk waaye jóge fa moo xam nit ku weex la walla nit ku ñuul ñu dem ba jëmmi jamono ñu seetlu ne léegi day mel ni dañuy taxaw di weddi ay tuuma waaye nekkatuñu di wan nit ñi ne leen da ngeen war a bàyyi li ngeen nekk jàpp si ci lu ñu nekk te day mel ni sëriñ bi li mu indi woon mooy li nga xamante ne mooy xeet li jamono mooy xeet li li des ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne nit ñi dañoo war a bàyyi lu ñu nekk dawut si ko loolu nag taxoon ñu am ay gëstu yuñ doon def ba tënk ci aslëf ngir bëggoon lee xëy na ku ko gis sa yàlla defal la ab xam-xam nga man koo wéral ba noppi man caa dolli ndax jamono ubbeeku na ubbeeku goo xam ne des na tuuti ci kanam bu fekkente ne dellusi waatuñu jàngale giñ doon jàngale sëñ Tuubaa danañu dem ba nga xam ne tey ku ñëwati mën naa xalaata tànn doon leneen ndax jàpp ne li sëriñ bi indi woon moog lépp a te fekk na yemuñu ndax ñi nga xam ne ñoo ŋànkoon lim fi fekkoon dañoo mujjoon di bàyyi loole di ñëw ci li nga xamante ne moom la fi indi ñu tànnoon ci nag donn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lenn ci li nga xamante ne bii tolloo na ak sunuy xel ñu mën ko cee indi di ko lay taayale waxi sëriñ Moussa Ka radiyallahu taala mi nga xam ne sëriñ bi xamal na ko ci boppam lu bëree bari mu wax ci xasiraam gi ne yow mi defoon xaatimul anbiyaa yi yaa dellu def xaatimul awliyaa yi yaa yónni woon muhammadul makkiyu dellu yabal muhammadul mbakkiyu këlee defar xuraysin ak adnaani kilee defar biidaani ak suudaani këlee mayoon yoneen ya seen kéemaan ya kilee defal xawsu yi seen xarbaax yi ki lay yoroon taybata booleeg makka ki lay yoroon tuubaa yoraale mbakke way yi way yu bëri bëri la ñi fi nekk ñëpp xam nañu ko foofu liñ fi bëgg a wax rek mooy li nga xam ne moom la sëñ Moussa Ka wax dafa wane ne jenn jëmm moo fi nekk sunu borom subhanahu wa dafa yónni woon seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca njëlbeenuk jamono yónni cheikhul xadim radiallahu taala anhu mu dikkee jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci mujjug jamono waaye kenn ki képp moom la ñu yónni boo jàngatee woy yi da ngay gis ne jenn jëmm la waxtaan wi nag tofteluñ ko ndax bi ñuy ñëw dañoo xawoon a ragal wuute waxtu wi waaye leen lu ci nekk danañ ko indi ba mu àgg xëy na bu beneen yoonee incha allahu taala danañ ko toftale ngir topp ko ci gan jamono yonente bi sallallahu ba ni yonente bi wuy jee sunu borom ni nga xamante ne noonu la ànde loolo ak Serigne Touba te wuute wuñ ci dara lañ cey jiital rek mooy ne yonente bi sallallahu alayhi boo xoolee at mi mu gane jamono muy ama saraxa atum junni atum juróomi téeméeri kon ak juróom-ñaar fukk baatub saraxa moo koy bind muy siin su wow ak raa ak ayin siin googu soo ci tegee ñetti tomb ci kaw muy sharaha dalay jox at mi nga xam ne ci la Serigne Touba feeñ jamono radiyallahu taala anhu nga gis ne kon foofu ñoom ñaar daje nañ fi te booba feeñagul jamono maanaam yan bi ñëwagut bañ man ne léegi la ko doon kon sëñ bi ci boppam bi mu doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam doonu ne dafa dem bañ jox ko yanub lislaam bi mu doog ko doon waaye doon gi mi nga tàmbalee ci feeñ ni jamono te mooy at mi nga xam ne ci la bi sallallahu alayhi feeñ jamono baat soo ko bindee siin su lay tàmbalee boo ci defee ñett tomb mu doon at mi nga xamante ne moom la sëñ bi gane jamono muy atum junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk bi mu yonent bi sallallahu alayhi jamono itam ku nekk xam na ne ay waajuram yaruñu ko li may wax nag maanaam lenn lu ci nekk topp nañ ko ci maanaam ñu bëree bëri waaye gisuñu kenn koo xamante ne nii ma koy waxee ni la demee kurul sëriñ bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay waajuram yaruñu ko maamam Abdul Muttalib moo ko yar ak baayam bu ndaw sëriñ bi radiyallahu taala kenn ku nekk xam na ne sëriñ mbusoobe lañ ko joxoon ginnaaw ba mu jox ko sëriñ Sàmb Tukulóor ka li may wax ñii fi teew xam nañ ko nga gis ne loolu itam ba tey niru na ko ci niki noonu itam bi mu doonee tu tànk ñëpp xamoon nañ yonente bi sallallahu alayhi ci di beru dawul nangoo jaxasoo ak kenn di wéet fu mu nekk di nekk ci xunt yi ba sax am na jamono boo xam ne réer na bi mu doonee tu tànk kenn gisatu ko ba ñu di ko wër ba benn yéefar moo daje ak moom yor ak gileem xàmmee ko ne ko nañ dem ma yóbbaale la daal di yësal gileem gi ne ko yéegal ci sama ginnaaw mu bañ te du yéeg ci ginnaawam mu ne ko yéegal ci kanam mu doog a nangoo yéeg ndax xam na ne kii du ko war a topp ci ginnaawam ak li mu doon doon tu tànk sëriñ bi radiyallahu taala anhu noonu la meloon bi nga xamante ne bii doon na tu tànk daawul jaxasoo ak kenn boo demee ci meneenul baaxil xadim bi Cheikh Mouhamadul Bachir wala téereb Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana bi mi ngi nettali ne ku bëggoon wéetaay la ku néewoon ñu muy jaxasoo la waaye itam ku ràññeekoon la ci biir ñi mu doon jàng nga xam ne su jëlee bindam ba noppi day dem toog ca àll ba di ko jàngaat niki noonu ba sax wéetaay boobu àggoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci xaaru xiraa nga xam ne la nekkoon foofee fala ko Seydina Jibril alayhi salaatu wasalaam fekk jox ko li nga xamante ne moom lañ ko yónni sëriñ bi itam ci xalwa la ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam fekk jox ko yan bi nga xamante ne bii moom la yanu nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk foofu fenn fu ñu leen yónnee te mooy donn gi nga xamante ne sëriñ bi donn na ko ci tom boobu beneen bi ci des tam mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam def na fukki at Makka di topp këri Okaas yi ak béréb yi nekk foofu xew-xew yi di leen wax ana kan moo may jàppale ana kan moo may dimbale ba ma jot lee sama yonent bi su boobaa dana am li nga xamante ne moom la bëgg nga xam ne kon dëkk bi mu njëkk a nekk moom yonent bi sallallahu alayhi fukki at la fa am jóge fa sëriñ bi radiyallahu taala anhu itam bi nga xamante ne yàlla dogal na mu feeñ jamono ba am ñaari at xuru Mbàkke la nekk ba ni mu amee fukki at ci la doog a jóge foofu dem ci Mbàkke Kajoor fi nga xamante ne fa la sëñ Mbàkke nekkoon te mooy ci maamam fukki at yi daal yonent bi fi mu njëkk a nekk fukki at la fa def sëriñ bi radiyallahu taala itam fi mu njëkk nekk fukki at def ñu gis it yonent bi sallallahu alayhi wa bi muy woote fekk na booba ñeent fukki at loolu itam sëriñ bi radiyallahu taala bi nga xamante ne bii dégg nañ sëñ Ablaat nettali ko bi muy dugg xelwaam boobu ca Daarul Xuddus ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko feeñu wax na ko ne maanaam toll nga ci

kenn ku nekk xam na ne am na lu ko gaar foofu ba naa xarija mi ko doon defal di ko wax ne lan yuxziyaka allahu abada innaka tasilu rahima ba fa wax ja jeexe ne ko yàlla day du la toroxal mukk ndax da ngay jokk ak mbokk dangay ngay aw gàngal te mooy ku kenn mënta dékku nga mën koo dékku yam ko wax yëpp tuddal ko ay jikkoy rafet na ko loolee nga nekke moo tax doo am benn jafe-jafe loolu itam mu dëppoo ci ak sëriñ bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ni bii xëluwaam boobu dajane ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ko gaaralee li mu bëgg da koo xamal ne loolu li feeg yaa ngi Tuubaa ak li feeg yaa ngi ak sëriñ bu soob bi ci kaw suuf loolu du mën a am nga gis ne ay sart lañ tegaloon yonente bi sallallahu alayhi ci bi nga xamante ne gisee na ak Seydina Jibril foofee sart yooyu itam dëppoo lool niroo lool ak yi nga xamante ne moom lañ tegal sëriñ bi ngir moo am li nga xamante ni maanaam moom la doon laaj sunu borom beneen bi ci tegee tam mooy ku nekk gis na taxawaay bi nga xam ne moom la sayyidatuna Xadija taxawe woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ko jàppalee ci alalam ñu bëree bëri ragale ko ko waaye itam taxawaay boobu kenn ku nekk gis na ne soxna eh, Aminatu Lo taxawee na ko ak sëriñ bi radiyallahu taala anhu ba wax nañu sax bi nga xamante ne sëriñ bi dafa waroon a wuy ji sunu borom dafa jël ay atam li ko dese may ko ko ngir mu toogaat nekk fi boo xoolee yonent bi salaasam ki njëkk a taxaw maanaam jotoo ko jëmmam ak alalam jigéen la muy ku nekkoon ak moom di wéttalam ci biir kër gi sëriñ bi radiyallahu taala itam gis nañ ne ku noonu mooy njëkk a taxaw joxe ak aw fanam ngir ñu yokkal ko sëriñ bi mu dem wuy sunu borom subhaanahu wa taala noonu itam bu ñu xoolee yonent bi sallallahu alayhi bi nga xamante ne ci lay woote booba fekk na ki nga xamante ne moo ko yar noppalu muy maamam Abu Talib sëriñ bi radiyallahu taala anhu itam woote bi gis nañ ne ginnaaw bi sëñ bu nopp noppalee ci la ko sunu borom subhaanahu wa taala doog jox ndigalul mu doog yanu yan bi nga xamante ne moom lañ ko joxoon. niki noonu boo dikkee ci yonent bi sallallahu alayhi boo demee ca téere bi ñuy wax uyunul athar muy téere boo xamante ne siira lay jàngale wax na ne fu ñuy wax cheikh bi abi talib yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk na fa def fa ñaari at ñaari at yooyee. boo ko xoolee moog ñaari at yi nga xamante ne moom la sëriñ bi def Mbàkke Bawol ñooyam te béréb bee nga xam ne yonent bi def na fa ñaari at ca la fa jànkonte woon ak coonoom bu metti boobee nga xamante ne saxaaba yi dund nañ fa loo xamante ne lislaam du ko yaatal mukk sëriñ bi radiyallaahu taala ku nekk xam ne ne jafe-jafe yu mel noonu la doon dund biir Mbàkke ba ci la toxoo maanaam dem fi nga xamante ne bii mooy Daaru Salaam niki noonu boo dikkee ci yonent bi sallallaahu alayhi gis ne bi ko nubuwa ñeent fukki at la am te mooy bi ko yonente gi di dikkal ni mu ko njëkk dikkale mooy israfil lañ ko booleel moo am ak moom ñetti at yoo xamante ne ak leer lay gis di ci déggee ay baat waaye wax yu wàccut alxuraan itam wàccut bi demee ba am ñetti at ci lañ ko booleeg Seydina Jibril alayhi salaatu salaam mu wàccee ci moom alxuraan ba mat ñaar fukki at yoo xamante ne bii fukki at ca Makka ak fukki at ca Madinatul Munawwara sëriñ bi it radiyallahu taala anhu xam na ne njëlbeenug bi muy dëkk Mbàkke boo xoolee day tolloo ak bi ñuy boole yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Seydina Israfil kenn ku nekk xam na ne booba yoon wi ci xiif ak mar waaye lenn loo xamante ne bii joxoon na leen ko muy jaamukaay yàlla yoo xamante ne bii maanaam ci yonent bi la bàyyi ko ñëw ci moom lu dul muy wirde yi nga xamante ne yeneen tarixa yi ñoo ko yoroon moom la leen doon tarbiya ak xiif ak mar ak beru ak yu noonu ba nu ñu àggee Daaru Salaam ci la ñu doog a tàmbali nga xam ne tarbiya gi lépp booba sikkar la tudd yàlla ak xiif ak mar foofee la ñu doog a tàmbalee di jàng lenn ci xasida yi waaye bi ñu dikkee tuubaa nag ci la mbir mi doo a dikki ci la bàyyi wér di yëpp jël alxuraanu karim jox leen yonente bi sallallahu alayhi wasallam tam njël xoolee njëlbeenu wooteem nii la demee li may wax boo demee ci téere bi ñuy wax siiratu ibnu kasir dana la nettali na yonente bi njëlbeenuk maanaam nubuwam wax yu dikkalu ko ci saase toog na ñetti at yoo xamante ne ay baat lay dégg ak di gisug leer waaye wax yu dikkalu ko maanaam Seydina Jibril ñëwlu ko woon niki noonu itam boo xoolee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ab wooteem bi mu ci jotee laata muy mën a def li bëgg Seydina Omar ibn al-Khattab dafa tuub dugg ci lislaam nga xam ne ci ñaanam la Seydina Omar ñëwee ci lislaam taxaw laaj ko ndax ñun ñoo nekk ci dëgg wala nekkuñ ci dëgg mun ne ko ñoo nekk ci dëgg mu ne ku nekk ci dëbb dëgg du ko nëbb rocc jaaseem ne nañ noddu génn ci biti ñu noddu mu taxaw bañ a julli ñuy julli mu taxaw te julli kenn ku nekk xam ne sunu borom da koo farataal ci doomu aadama mu taxaw laxasaayu di leen aar ba ñu julli ba noppite te su xaala boobu ku wéyoon su fekkoon ne tolluwaay boobu teggeeku tan Seydina Omar dootu teg ab jéem ci suuf day taxaw ak ngànnaayam di leen wattu saa su nekk ñuy julli ba ba nga xamante ne yàlla tegge na loolu gis nañ ne itam sëriñ bi radiyallahu taala bi nga xamante ne bii yàlla jox na ko yan bi laataa muy mën a maanaam tasaare yan bi ni mu ko bëggee woon maam Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu taala dafa tabbi si ci yoon wi ñëwee kem ne Seydina Omar ibnul Xataab ñëw ndax Seydina Omar ci kàngami Xuraysi yi la bokkoon ñi ci gënoon a tedd aw askan gënoon cee rëy ab yax Cheikh Ibrahima itam boo ko xoolee ci askan woowu la bokkoon fi mu nekkoon ku nekk xam na ne ay maamam dañ daan yilife ay doomi buur lañ woon nga xool ne ñaar yi xoolee ñoo niroo beneen ba jar sam Seydina Omar bi muy ñëw fanweeri saxaaba yi ak juróom-ñeent la fekk Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu taala bi muy ñëw sëriñ bi fanweeri taalibe ak juróom-ñeent la fa fekk nga gis ne kon ñaar yooyu ñoo ko niroo ñoom ñaar sëriñ bi radiallahu taala anhu soo xoolee yonente bi sallallahu alayhi wasallam noonu ma ko waxee woon ci njëlbeen gi ne def na màkkatal mukarrama fukki at ak juróom yoo xam ne maanaam def na fa fukki at def madina fukki at maanaam laa màkka laataa ñu koy yónni rek at yooyu nga xamante ne moom la fa def nga xam ne ak leer la doon gis te mooy ñetti at yooyu nga xamante ne ak leer la doon gis waaye doontoon gis wax yu boo ko xoolee defaat na fa ci biir fukki at yi nga xam ne ci la ko Seydina Jibril ñeenti at yoo xamante ne bii Seydina Jibril du dikkee ak melokaan woo xamante ne bii maanaam at mënoon na koo dékku ci ak nite gi mu doon dékkandoo Seydina Jibril nga xam ne dafa mujj Seydina Jibril bu dee ñëw ñëwati melaw daxiyatul kalbi yi lay ñëwee muy benn saxaaba yi boo xamante ne ci saxaaba yi la bokkoon ngir yonente bi salaa salaam nite gi muy dékkoo Seydina Jibril ndax maqaama bi mu yore bu ci gàttandoo Seydina Jibril Seydina Jibril du ko attan waaye li nga xamante ne ci lay wàcc ba àgg fu ko Seydina Jibril mën a dikkale melo woowu la ci doon yore ba tax na defoon na foofu juróom-ñaari at boo xoolee sëriñ bi radiyallahu taala anhu laataa ko yonent bi di dikkal ak jëmmam nga xam ne jëmm ji la gis def na juróom-ñaari at yoo xamante ne bi Tuubaa la ko def yoo xamante ne leerug yonent bi lay gis sallallahu alayhi wasallam lu mel ni ab kiiraay dox seen diggante ñoom ñaar muy yëg yonent bi di wax yonent bi muy wax muy tontu waaye jëmm ji dikkalu ko dëgg dëggi maanaam jëmmam ni ki nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono bi Seydina Jibril dikkalu ko woon maanaam lu dul ci melaw woo xamante ne daanaka boo ko xoolee demoon na ba dañ koo mujj soppil melaw yi ngir nite gi mën koo dékku nga gis ne foofu kon ñoom ñaar kenn ku ci nekk biñ koy jox ab lii nag tekkiwut ne dañuy tëkkale li ñuy wax ay wolof la ñëpp dégg nañ ko waaye dañuy wane sëriñ bi radiyallahu taala anhu ni nga xamante ne noonu la donnoo bi tàmbali gi ba ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wuy jee sunu borom <coughs> soo xoolee itam ci njëlbeenuk lislaam yonent bi sallallahu alayhi nekk na di julli jëm baytul maqdis ba ni nga xamante ne bii noonu la ñëwee ci madinatul munawwara biñ demee ba ci rabiul awal ci weeru gàmmo ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ne booba atum ñaar la yu teg maanaam ñaareelu atub gàddaay gi yu teg juróom benni weer ñu dem ba weeru rajab jot ci lañ wëlbati xibla bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam tàmbali di jublu madinatul munawara boo xoolee sëriñ bi radiyallahu taala anhu weer yu toll noonu ak at yu toll noonu moom la sax jolof ñu dog koo jëleloo liggéey bi fii nag mu war a dem ci géej gi te mooy ne juróom benn weer la yonent bi sallallahu alayhi wa def foofee nga xam ne mooy madinatul munawara ñu ne ko léegi bul jublooti baytil maqdis del julli di jublu maanaam makka sëriñ bi itam juróom benn weer la def jolof tubaab yi jële ko fa génne ko réew mi xamal ko ne dootu fi jaarati yóbbu ko ba faw muy liggéey boo xamante ne war na ko def foofee ci réew yi sori boo xoolee itam yonente bi sallallahu alayhi bi nga xamante ne yàlla dogal na ñu yónni ko muy waaraate waaraate wi dem ba xatal nit ñi ñi xam ne ñooy ay yéefar dañoo dikk ci baayam bu ndaw ne ko danoo bëggoon nga jox nu ko ñu rey ko bu ko defee ñun ñu jox la sunuy doom ñu taxaw taxawaay bi la doom waroon a féete ndax suñu yàlla yi mi ngi koy ŋàññ toroxal nanu lu nekk ñu wax ne wax na leen ko moo xamal leen ne kon li ngeen bëgg yéen mooy ma teel leen seeni doom di leen yafal yéen ngeen rey sama doom loolu day duma ko nangu daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko kat ginnaaw maa tax mënuñoo jot si ci yow damaa bëgg nga jàppale ma bàyyi seen yàlla yi ngay gaaral te itam bañ a tee wax lu leen naqari yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan la ko wax su fekkoon ne jël nañu jant bi teg ko ci sama loxol ndeyjoor jël weer wi teg ko sama loxol càmmoñ duma ko bàyyi mukk lu dul na yàlla da koo feeñal mbaamu ma faatu ci loole itam boo ko xoolee niroo na lool ak xaalu leer kan li abwaabi salaatini taxus jawaïsa toxni ku la maa xiini te mooy gaaral gi ñu gaaraloon sëriñ bi ngir mu dem ci maanaam buur ya tafu ci seen wet di leen atteel ak di leen jege ngir lee dara toppe ko fa dara de ko fa toppe boo xoolee lañ diggoon yeneen bi foofu mooy nguurug àdduna liñ diggaat yooyu ndax dañ ne bu fekkee daa bëgg a woomal ñu jël ci sunuy alal jox ko ba mu ëpp leenu su fekkee dafa bëgg a doon kilifa ñu def ko buur maanaam teg ko ci sunu kaw topp ci ginnaawam loolu tam boo xoolee daanaka mooy nafsu liñ gaaraloon sëriñ bi radiyallahu taala anhu ca jamono jooje ndax jamono jooje daraja ji gënoon kawe ci daraja yi àdduna mooy jege buur nekk ci wetam boo xoolee itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp la ñu mas a gis ci yonent boo xam ne dañoo wax ne xel alquran da leen di wéree di xel loolu itam sëriñ bi wax na ko xaalu safihun boo demee ca maanaam xasida googu nga xam ne moom la def ba ma ngay wax sax ne bu fekkee lii sama wéré di mooy jàpp ci diina ji wér kon day dootuma wér bu mukk gisuñu itam keneen kuñ mas a jiiñ loolu koo xam ne aw nitam ñoo ko jiiñ loolu ku dul sëriñ bi radiyallahu taala anhu suñu xoolee itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ne mi ngi gàddaay Seydina Ali karamallahu wajhahu la jëloon dénk ko ndénkaan nañ ko dénk ko ndax yonent bi dañ ko wóolu woon yëfari dañ ko daan dénk seeni alal te bëggut a dem yóbbaale ko mu wax ko ne ko na tëdd ci kaw lalam sàngoo mbalaanam fanaan ba bët set boo ko defee mu jox leen liñ ko dénkoon daal di ñëw gàddaay fekki ko sëriñ bi it bi muy dem radiyallahu taala maam Cerno la dénkoon njaboot gi ak lépp mu toog fa nga xam ne fa la sëriñ bi toogoon te maanaam mooy féete fi nga xamante ne fi la sëriñ bi féete woon taalibe yi di tarbiya di yeewi di seexal lépp moo ko doon def kem ni nga xam ne Seydina Ali noonu lañ ko bàyyilee ana ñoom ñaar lan lañ niroo Seydina Ali karamallaahu wajhahu ku nekk xamoon na ko ci xam-xam ba baabul ulumi lañ ko doon wax Seydina maanaam maam Thierno itam xam-xam bu fekkente ne bii maanaam xam-xam rek kenn ku nekk xam na ne amul jenn jëmm juñ ko mas a tëkkaleel ci xam-xam ndax sëriñ bee ko jàngalal boppam ba am jàngam àgg sëriñ bi lii may xam na ci dara sëriñ bi daana ko jàngalub téere ba téere bi xaaj mu ne ko Thierno li ci des may naa la ko te nee na li des ci bi lay gën a xam ci li nga xamante ne moom la jàng bu dee ñaari téere itam xaaj bu njëkk boo ko jàngee li ci des danaa ko mbokk dimbalee ko mbokkam su boobaa itam téere boobee lay gën a xam ci loolu kon xam-xam ba nga xam ne tey moo ne woon Seydina Aliin karamallaahu wajhahu bañ di ko wax baabul ulumi boo ko xoolee niroo naag bi nga xam ne moo nekk maam Cerno te it moo doon suñ baabul ulumi beneen bi ci tege mooy Seydina Aliin waajuram soxna Fatimatu la tuddoon maam Cerno itam waajuram soxna Fatimatu Isa Jéy la tudd kee Fatimatu bintu Asad bintu Asad ak Isa isa ak asad ñaari itam boo xoolee niroo na lool beneen bi ci tegee tam mooy waajuru Seydina Aliin karamallahu wajhahu yonent bee ko nangu ci biir bàmmeel waajuru maam Cerno itam kasaalika Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu moo ko nangu ci biir bàmmeel bu ko defee boo xoolee tam seen wàllu tarbiya ñoom ñaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam sunu borom da ko wax yaa ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rijsa fahjur wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir tam mooy tarbiyal ci himma yareel ci yëkkati yitte nit ñi te mooy maanaam na nga njëkkee ci sa bopp defar ko nangay tudd sa borom say yére na set na laab yére kenn ku nekk xam na ne du rek mbubb ay jikko ci yére yi nit ki la bokk na nga daw ab tir te it bul di joxe ngir ñu jox la lu ko ëpp na ngay muñ itam ngir sa borom sëriñ bi radiyallahu taala anhu képp moom la ñu mas gis koo xamante ne rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi ci la tarbiya te loolu ginnaaw bi fi yonent bi laa sa wasallam jógee mbooleem ku fi tarbiyawaat bi darsi ci la tarbiya waaye tarbiya bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon tarbiya saxaaba yi moom sëriñ bi moom moo ko moo ko ci doon waat nga xool tam bi nga xam ne yonent bi indi na loolu xuraysin def nañ ko benn xisaar te mooy lëkkaloo ne buñ jëndati ci ñoom buñ leen jaay buñ fa ñaani soxna buñ leen may soxna buñ seqateeg ñoom dara ba ñu àgg ca xiif bay lekk ay der ak di lekk ay xobi garab nga xam ne am na ci saxaaba yoo xam ne sax loru nañ ci nafsu sey déggaguñu benn nitu yàlla boo xam ne mas na koo dal ku dul cheikhul xadim radiallahu taala anhu te mooy Touba xëy nañ Merlin bind benn xaraar wax maam Cerno ne ko yeewil taalibe yëpp taal kër ga génne leen tasaare leen ci lañ demee woon sëñ Mbàkke bu sa ñoom dem kër Serif Lo sëñ Mandumbe dumbe dem xabba kenn ku ci nekk maanaam jëm genn wet jëm genn wet nga xam ne tasaare nañ leen ñoom ñëpp ba noppi itam képp koo xam ne doon na murit fenn fu muy dem fu nekk mu yombati ko amut sëñ bi itam kadaalika fa mu nekk ku fay dem ku nekk da ngay jaari fañ fañ lay jaarloo muy ndar ñu xool li ngay yóbbu xool say bagage li ngay yore peese ko limité maanaam maanaam ne la nangami fan nga fay am loolu boo ko xoolee amul kenn ku mu masa dal ci ñu fi wooteel l'islam topp nañ seeni histoire moo xam saxaabi yu la nag moo xam xutbu samaan wala ku mën a doon ku dul sëriñ bi radiyallahu taala anhu nga gis ne kon loolu boo ko xoolee ba tey jëlaat na ko ci boo xoolee gàddaay yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi gàddaay na ko ñaari gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaa gàddaay manees na ne ñetti yoon la ko def ñaari yu njëkk yi xabasa lañ dem mooy Éthiopie ndax saxaaba yi dañoo njëkk a dem xabasa bi ñu demee ginnaaw bi ñu dégg ne jul yéefari tuub nañ seen ginnaaw ñu dellu si ñu sonal leen fa lool ba ñu gàddaayaat dellu ginnaaw gàddaay beneen bi ci tegee tege madinatul munawwara la ñu gàddaay dem nga gis na kon ñetti gàddaay la sëriñ bi radiyallahu taala anhu soo ko xoolee moom itam gàddaay yëpp ñetti gàddaay la benn bi ci réewi yéefar yi la muy géej gi beneen bi ci des ci réewi gànnaar yi la muy Mauritanie beneen bi ci des di Céyeen mujj gàddaayu yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy madinatul munawwara la hijrata ba'dal madina la wax ne amatul gàddaay ginnaaw madina sëriñ bi radiyallahu taala itam fi mu fi ñu ko mujj indi te jëlewaatuñ ko fi boo ko xoolee madina la fii ñu toog tey jii muy kër gu mag nga gis ne kon gàddaay yi nii ak gàddaay yi niroo nañ lool gàddaay yi nii mooy lan bi ñu njëkkee gàddaay ci yéefar la ñu dem sëriñ bi itam bi ñu ko fi njëkkee jëlee ci ay réew yéefar lañ ko yóbbu bi nga xamante ne gàddaayaat nañ ci ay jullit la ñu dem muy Madina sëriñ bi itam bi nga xamante ne jëlewaat nañ ko fi yóbbu ko ci réew yi jullit lañ ko yóbbu muy Mauritanie kon foofu itam niroo nañ fi suñu xoolee yant bi salaasam bi muy gàddaay xaaru xaar xunt moom nga xam ne ci la duggoon def na fa ñaari guddi yoo xam ne yéefar yaa ngi koy seet ñaari guddi yi bi mu jàllee ci la fa doog a jógee jàll madinatul munawwara sëriñ Tuubaa itam néeg boobu ko tubaab yi dugaloon muy wax ne ida dakartu dalika al mabita wa dalika al amira wa subuta taarat ila al jihaadi bil armahi nafsi walakin sabaha anil maahi ñaari guddi la fa def te boo xoolee xunt mi yonent bi duggoon sallallahu alayhi ay jaan ñoo fa dëkkoon ba jaan matt na fa Seydina Abubakar li may wax ñëpp xam nañ ko sëñ bi itam fi ñu ko dugaloon ay pont lañ defoon ci suuf ak ay rabo ak xeet yi demee noonu te loolu boo ko xoolee dañ ko tooke woon soo wut ak jaan ndax tam li jaan di def ci yaram képp moom la doon def guddi yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam am fee itam moom la sëriñ bi am fii radiyallahu taala anhu te Seydina Abubakar mën nga ne foofu ñaar lañu waaye Seydina Abubakar doonut ñaar ak yonent bi biddaa la ci moom maanaam Seydina Abubakar dafa jeex ci yonent ba bokk ci moom ndax jaan ji ci boppam mën nañ ne yonent bi la doon bañ mu lor ko mu jotoo ko boppam te ki nga xam na ma àgg ak yow foofu kooku kenn dootu ko lim di la lim ci sa jëmmi bopp lañ koy boole te loolu moo tax kon mën nañ ne kenn na fa nekkoon koo xamante ne ñaari jëmm la waaye yonent bi sallallahu alayhi képp moo fa nekkoon sëriñ bi itam radiyallahu ta'ala anhu bi mu nekk ci xunt moom itam kasaalika niki noonu niki noonu bi nga xamante ne nekk nañ fa wax nañ ne asmaawu moo leen fa doon fekk muy doomi sayyidatuna abu bakrin radiyallahu ta'ala di leen indil aw ñam sëriñ bi itam bi mu nekkee foofu nga xam ne fa lañu ko tëjoon kenn la fa gis muy soxna jaare bu so nga xam ne kon yonent bi sallallahu jigéen a ko fekk fee muy asmaawu kadhalika itam sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu soxna si moo ko fekk foofee soo xoolee itam yonent bi sallallahu ay yéefar ñoo ko génne ay jullit génnewuñ ko keneen ku mën a doon nag ay jullit nga amal jafe-jafe indi luñ mënta dégg ñu jàppante yow génne dëkk ba waaye yonent bi képp la ay yéefar génne sëriñ Tuubaa ñaareel moom képp la ay yéefar génne walan tarda anka al yahudu wala nasara xata tattabia millatahum yonente bi dañ ne ko yéefar yi ak nasaraan yi duñ la gërëm li feek toppoo seenum ngir nasaraan yi sequñu woon ak yonente bi dara sëñ Tuubaa lañ doon dund ci aaya bi yonente bi ay yahud la jamonoonteel yahud yi ñoo am ak moom jafe-jafe xaajub aaya bi jël sëñ Tuubaa moom ko ndax moog yonente bi sallallahu alayhi benn lañ boo xoolee noonu ñu ko waxee ci biir yonente bi sallallahu alayhi wasallam xaswa bi mu njëkk a xare ñu koy xaswatu waddaan am ñu koy xaswatul abwa ci weeru safar la ko def xare bi bi ñu àggee itam jotuñoo xare ndax dajewuñoo ak yéefar yi Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala itam jàmmaarloo bi mu njëkk a jàmmaarloo ak yéefar tubaab yi doon ko jël si nga xam ne dafa dem dajaje ak ñoom te ñoo xeex itam ci weeru safar la ko def ñoo bokk wenn weer yonent bi xare bi mu njëkk a jàkkaarloo ak weeru safar la sëriñ bi itam weer woowu ci lañ ko njëkk a maanaam ci lañ njëkk a ay yéefar ngir ja ñoo doon xeex si nag ñoom dañ doon xeex si ñeey dañ doon xeex si mujj ñu xeex sëriñ bi itam kasaalika noonu kon boo xoolee te mooy fi ñu dajee ñoom ñaar ci jeewal boo xoolee itam waddaan yonente bi sallallahu ba mu fa àggee def na fa li desoon ci safar ji ba mu àgg nekk fa ba weeru gàmmo ci la fa doog a jógee moom yonente bi sëriñ bi itam bi nga xamante ne tubaab yi jëlee nañ ko jeewal nekk na dakaar li desoon ci safar ba mu jeex ba nekk fa ba weeru rabiul awal des ay fan ci lañ ko fi doog a jógee jële yóbbu ko ci géej gi boo xoolee weer yi yonent bi sallallahu alayhi wa def ci waddaan foofu bi mu doon xare ji ak ñoom te jot xeex ak ñoom li mu weer yooyu ak li mu fan yooyu moom la sëñ Tuubaa des Dakar ñu doog a jël sëñ bi yóbbu ko ci géej gi suñu xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa tam moom la ñu mas a gis koo xamante ne ay jinne dañ koo jébbal seen bopp wuy si ab wooteem sëriñ bi radiyallahu taala tam moo wax ne bi yata'allaqa alladina aslamu min jinni asri duna man lam yuslimu moom la ñu mas a gis koo xamante ne bind na wax ne jinne yi nga xamante ne ñoo jamononteeg moom ñëpp dañoo jéblu ci moom soo jàngee xul wax yee ilay an sama nafaru min jinne ba fa aaya ba yam aaya yam da nga gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay jinne dikk nañ ci moom déglu waaraate wi dem ci seeni gaay di leen waar ba dugal leen ci lislaam suñu xoolee itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam amoon na fukki jàkka ak juróom-benn liñ ko li mu waxoon ne mooy xurratu ayneem mooy liy sedd xolam mooy julli dañoo def seru sedd xolam ci julli fenn fuñ koy màggalal fudut ci biir dëkk bi fudut foo xamante ne dafa julli julli lañ gis ne mooy maanaam ñaari rakkaay ndare wala ñaari rakk rakkaay géej ga wala fii julli na fa foo romb ñu waree la fay mool fu mu julli la woon ni ñu bàyyee xel béréb yi mu julee nga xam ne tey maanaam wutu gi mu wutu yante bi salaasam ci loolu noonu la demee ba amoon na béréb yoo xam ne daana fa am fukki jàkka ak ñaar biir kër gi amoon na fukki jàkka ak ñaar yoo xamante ne jàkka ju nekk waxtu dana ko fa def satala gi mi ngi ci buntu bu jàppee dugg foofa bu jullee ba mat waxtu mu jóge fa jàll ci jay jàkk nga xam ne buy noppi day tolloog fukki waxtu ak ñaar yi ci guddi gi bët set mu dem julli ji fajar nga gis ne qurratu ayneem ñu ngi ko defaloon ci julli yonente bi sallallahu alayhi wasallam tam kasaari ko noonu ak ni yonente bi daan jóge koo dégg ci kenn kuy Sëriñ Tuubaa te mooy fuñ xasee noddu danaan bërit ba danaan àgg sax ci naan yaa bira bilaalu arihna bis sala yow bilaal noddal ndax ñu noppalu ndax ci julli lay noppaloo maanaam dootu amati jàmm sëriñ bi itam su julli ji kenn ku nekk xam ne ne dàll bi bu sumee ko du ko gestu du ko laal kon loolu itam boo ko xoolee maanaam radiyallahu taala ni mu ko ci doon noo amul kenn kum ci yemal jàkk yi mi ngi nii boo demee ci téere siira yi danga nga ko fa fekk du jar ñu di ko tudd ndax waxtu wi du nu ko may kadaalika yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ni bii wahyu yi mi ngi wàcc ci moom ñaar fukki at ak ñett lañ wax ne boo ko boolee lépp ci la alxuraanul karim wàcc ci moom sëriñ bi itam tukki bi soo ko xoolee nattu yi fi mu tàmbalee boo fi mu jeexee boo ko xoolee ak maanaam boo ci génnee fay gi fi ko fayee lépp ñaar fukki at la ak ñett nga xam ne kon ci diir boobu ñu wàccee alxuraan ci moom sëriñ bi itam cër bi ñu ko doon jox muy maqaamam xaadimu rasul radiyallahu taala anhu ci la ko am ci ñaar fukki at yooyu ak ñett. ni noonu boo xoolee yonente bi salaa salaam ni ma ko waxoon kii bi dafa tegaloo woon ndax ni ma ko doon bindee ay xalifaam xëy na waraguñu woon ak si foofu. yonent bi sallallahu alayhi ñeenti xalifa ñoo ko wutu am ñu ci boole Seydina Omar ibnu Abdul Aziz muy juróomi xalifa sëñ bi radiyallahu taala soo ko xoolee juróomi xalifa ñoo ko wutu Seydina Aboubacar mi ngi tuddoon Abdullahi ibnu Abi Quhafa kon Abdullahi la tudd ki ci tege tudd Seydina Omar ki ci tege tudd Seydina Ousmane ki ci tege Seydina Ali nga xam ne ñi wuutu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñeenti ñëpp seeni tur ñoo bokk arafuñ tàmbalee muy ak ayin abdullahi omar ali othman aliyu sëriñ bi radiyallahu taala anhu ak boo jëlee omar ibnu abdul aziz nga xam ne ay ayin képp ko wutu li mu ayin ñi ñi si ñoom sëñ sëñ mbay lu mag ñooñu xam nañ ko boo jëlee sëriñ bi radiyallahu taala anhu tey boo jëlee Seydina Omar noonu ma koy waxoon ñeenti xalifa yi nga xam ne moom la ñëpp juboo ci ne ñoo ko wutu soo jëlee araf yi njëkk ci seen tur araf wu ci ne juróom-ñaar fukk la ñeent juróom-ñaar fukk ñaar téeméer la ak juróom-ñett fukk nga jël sëriñ bi mag bi radiyallahu ta'ala anhu ñi nga xam ne ñoo ko wutu ci ay doom Cheikh Mouhamadou Moustapha Mouhamadou mii moo ci njëkk di ñeen fukk comme neex na woñu Cheikh Mouhamadul Fadil Mouhamadou mii ci njëkk di ñeent fukk muy juróom-ñett fukk sëriñ Abdoulahat ayin la di juróom-ñaar fukk juróom-ñaar fukk juróom-ñett boo ko boolee muy téeméer juróom fukk sëriñ Abdul Xaadir ayin moo ci mujj moo ci njëkk di juróom-ñaar fukk juróom-ñaar fukk su fekk see téeméer ak juróom fukk muy ñaar téeméer ak ñaar fukk sëriñ Saliou saat moo ci njëkk su fekk see juróom benn fukk muy ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk soo xoolee li mu seen boppe araf ñaar téeméer juróom-ñett fukk la soo jëlee ñi toogal yonent bi sallallahu alayhi wasallam seen bopp araf yi njëkk seen tur ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk la lay jox soo xoolee seen araf yi tur itam ñoo tolloo kum neex nag nga nga woñu nga gis ne loolu amul kenn koo xam ne mas na koo am ku dul cheikhul xadim radiallahu taala anhu soo xoolee sëñ bi ki nga xam ne moo ko njëkk a wutu muy cheikh mouhamadou moustapha juróom benn fukki at ñaar la fi am yonente bi sallallahu alayhi wasallam juróom benn la fi am seydina ousmane mi nga xam ne ginaaw laata seydina ali moo wutu yonente bi juróom-ñett fukki at ñaar la am cheikh mouhamadou fadil juróom-ñett fukki at ak ñaar la am bàyyi koo fi Seydina Abu Bakrin juróom-benn fukki atak ñaar la am soo ko xoolee moo limub Cheikh nu Moustapha bi ñoo tolloo sëñ Modou Moustapha bi nga xam ne moo njëkk a wuutu sëñ Touba juróom-benn fukki at ñaar lañ wax ne ci la fi bàyyi ko su dee juumuma ci te yaakaaruma ko Seydina Abu Bakrin Siddiq mi njëkk a wuutu yonent bi juróom-benn fukki at ak ñaar ci la wujjee sunu borom boo jëlee tey euh, Seydina Abu Bakar Seydina Aliin ñoom ñi ñëpp ku ci ne at yonent bi la dund maanaam ñii ma wax itam boo ci génnee Serigne Fallou ak Cheikh Mouhamad Moussa ñii ci des ñëpp ati sëñ Touba lañ dund Cheikh Abdoul Ahad juróom-ñaar fukki at juróom ndax wax nañ ne sëñ bi juróom-ñaar fukki at ak juróom la fa la bàyyi ko am ñu wax na juróom-ñaar fukk ak ñaar moo gën a siiw moom la sëñ Abdoul Ahad bàyyi ko fi sëñ Abdou Khadir at yooyu la fi bàyyi ko Cheikh Mouhamadul Basir at yooyu la fi bàyyi nga gis ne kon kuutaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn ku ci nekk wuutu na ko ba wuutu ko ci at yim dund sëriñ bi radiyallahu ta'ala maintenant moom képp ngay gis keneen ku dul moom boo ko xoolee kam fi bàyyi gut suuti na ko fan loo xam daanaka mat naa ñaata ay loolu itam boo ko xoolee ci ay jagleem yi mu doon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bokk kadaalika boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi fi ñu ko denc ñi dem Makka fii bëri na soo demee Madina fi ñu ko denc booy génne ci bunt bi yaa ngi bàyyi yonent bi sallallahu alayhi ci sa càmmoñ soo génnee yaa ngi jàkkaarloog armeel ya kadaalika sañ mag bi itam buntu penk boo fi génne yaa ngi koy bàyyi sa càmmoñ soo génnee itam janaasa yi ngay jàkkaar lool ñaari saxaabi yu lañ denc ndoog yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy Seydina Abubakar ak Seydina Umar sëñ bi itam ci xurum bi mu nekk Cheikh Mahamadou Moustapha ak benn denc ni ñëw ci ni mu wuyjee sunu borom subhanahu wa taala benn la moog ni nga xamante ne noon la sëriñ bi radiyallahu taala anhu làqoo ndax yonente bi ci xajatul wadaa aj gi mujj aj ci la tàggatoo sëriñ bi itam julli tabaski mujj julli tabaski ci la defee xutbaam boobu ci jamono yi boo xoolee ci la gis gi di wàññeeku ba ni nga xamante ne yàlla dogal na bu yonente bi noppalu ci rabiixul awal ci bésub altine ñu denc ko àllarba sëñ Tuubaa noppalu ci eh, muharram moom itam bésub altine la sëñ Tuubaa làqu àllarba lañ ko denc dencin wi lépp boo xoolee benn la nga gis ne kon eh, sëriñ bi radiyallahu taala yonente bi sallallahu mas nañ ko tooke am na benn yahudiya bu ko joxoon ab tànku xar ndax yonent bi wax nañ ne lim gënoon a bëgg ci gàtt mooy tànk bi maanaam waa ji xam loolu ndaw si kon daal di jël jël tooke joo xam ne ku kon lekk ci saase la war a faatu def ko ci jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi lekk ko bi mu tàmbalee lekk tuuti ci lañ ko xamal ne gàtt bi la ko xamal ko ne dañ koo tooke mu daal di téye loxoom woo ko laaj ko loo ci jublu mu ne ko damaa bëggoon bu dee yonent nga xam naa ne du la rey boo dutub yonent nga faatu nit ñu noppalu saxaaba yi nar koo njëkkante nar koo rey mu ne leen bàyyi leen ko sëriñ bi radiyallahu ta'ala ñëpp xam nañ ne tubaab bi wóor na ko bis ginnaaw ba mu gisee ne café lay ëpp lu muy jëfandikoo mu jël tooke joo xamante ne ku ko naan faatu ci saase bu dee nit def ko ci maanaam jox ko ci kaas sëñ bi jëfandikoo kaas ba ne ko dollil mu dolli ko mu dolli ko ba nga xamante ne bii tubaab bi ci boppam dem na ba jaaxle mu xamal sëñ bi tooke ji ci nekk sëñ bi la sëñ bi fayee yàlla fayee ci kafe maanaam loolu duñ ci dugg ndax waxtaan wi laaju ko waaye daal ñaar yi boo ko xoolee boo ko nuralee da nga gis ne yant bi sallallahu alayhi wasallam moom lañ mas a tooke tooke ju mel noonu mu naan ko mucc kasaalika itam sëñ bi te itam kii donn gi mu ko doon tax na ñoom ñaar bokk nañu niroo foofu soo xoolee tey yonente bi sallallahu alayhi wasallam fi ñu ko génnee woon muy màkkatal mu karama men na moom lañ mas a génne cib yonent mu moomaat fañ ko génnee woon amul benn nitu yàlla boo xam ne génn nañ la sab dëkk nga delluwaat fa feneen ngay nekk kay ba faatu li may wax ku topp histoire yi xut bu samaan yi fi jaar kenn ku ci ne kii day dëkk dëkk bii ñu génne ko mu dem ca dëkk ba ca wet ga ñu génn ko mu dem feneen ba ba muy xëy faatu fenn ay taalibeem di tasaare woote ba ba mu dikkaat ci ab dëkkam waaye Serigne Touba la ñu génnee Sénégal mu dellu siwaat Sénégal Touba giñ ne ko woon da nga ko génn ñu sancaat ko ci jamonoy tubaab yi ñu ciy teg seen bët te dañ ne ko woon maanaam bu fa kenn jaarate ba taal kër ga nga xam ne bagage yi ak lépp dañ ko boole lakk maintenant moom lañ gisaat lu mel noonu ba mu moomaat Touba ni nga xamante ne noonu la ko moom moom gu njëkk yonent bi sallallahu alayhi wasallam tam noonu la demee woon ci Makka kasaalika ñi ko génne woon tam muy ay noonam mu mujjaat bi mu ubbee Makka ñoom ñëpp ñu dugg ci lislaam sëriñ bi itam bi nga xamante ne yàlla dogal na ay noonam génne ko ñoo mujj juboo waat ak moom maanaam ñaan ko mu nekk ak ñoom ci jàmm delloosi ko maanaam Sénégal may ko li nga xamante ne moom lañ doon bañ mu def ko te mooy taxawal lislaam te may ko maanaam bindal ko lu tax mu defar jumaa ji luy wane ne maanaam ànd nañ ci ne léegi na tabax néegu yàlla te daanañ daaneel ay mbaaram yoo xamante ne doon na ko def kon boo ko xoolee yonent bi sallallahu alayhi tam bi mu gàddaayee dem Madinatul Munawwara béréb ba mu daloon ba mu àggee da ko jënd sëñ itam mel na moom képp mooy koo xamante ne bi mu agsee fii dafa jënd boqaatul mubaaraka keneen ku mu a doon dañ laa génne nga àgg fenn ñu daggal la béréb nga nekk fa waaye jëndoo ko ci sa sa doole nga gis ne kon niki noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamante ne noonu la doon yaree ku mu defar ba gërëm la ñii da leen di yabal dëkk sàngam ñu dem fa di waaraate ñi mu yabal leen feeñ ñu dem fa doon ay kilifa loolu boo ko xoolee ak seexal gi sëñ Tuubaa def seexal ci sëñ Tuubaa la njëkkee boo ñu nekk foofa di jiite ñu leen di liggéeyal di leen jox ay addi amul keneen ku ko amoon dañ lay siyaare di sàkku ci yow ñaan nga toog sa biirum néeg yore sa kurus waaye am maa jëmi lay dogale tool di la bayal di lee tudday doom di jébbalu ci yow kooku moom ci sëñ Tuubaa la a amee ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi mooy noonu nga xam ne noonu la daan def ak saxaaba yi yonente bi itam bi mu gàddaayee li mu njëkk def foofa mooy tabax fa jumaa mbokkale muhaajiruna yi ak lansaar yi muy ñi gàddaayoon ànd ak moom ak ñii fa fekk sëriñ bi itam bi mu ñëwee fii kasaalika noonu la def mbooleem fu doomi soxna nekk yore taalub diine indi na la fii jaxase leen boole leen ñii dencante ak ñii ñii dencante ak ñii ñii bokk ak ñii kër kasaalika lim fi njëkk a def itam ginnaaw boo xamante ne dal na fii mooy taxawal fi néegub yàlla bii nga xamante ne tey jii fi la ñu nekk boo xoolee itam ginnaaw bi loolu jàllee yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp lañ xameel teen boo xam ne xëy na teen ba maama ma ko fa defoon muy biiru zamzam ay nit dañ fay dem di ca tàng ca ndox ma di ko barkeeloo fenn fu nekk ci àdduna bi di ci naan muy faj seeni tawat di faj seeni aajo sëriñ bi itam boo xoolee teen boobu mel na moom képp moo ko am muy aynu rahmati te sax du benn benn ngi fii ci kër gu mag gi kasaalika yonente bi sallallahu gis nañu saxaabi bu ko toppoon boo xam ne jox na ko ñaari doomam muy Seydina Ousmane kenn ki da koo jox mu def diir noppalu mu joxaat ko keneen ki sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo sëriñ bi joxoon na ko ñaar ci ak njabootam te boo xoolee Seydina Ousmane ibnu Affan ni mu taxawoo njabootu yonent bi ci alalam sëñ daama Abdourahman loo taxawoo ne na njabootu sëñ gi ci xam-xamam ndax xam-xam mooy alali doomi soxna te mooy jàngal na leen ba ñu mokkal alxuraan li ëpp ci ñoom moo leen mokkal alxuraan nga gis ne kon foofu niroo na fi lool ak Seydina Ousmane radiyallahu taala anhu yonent bi itam bi mu ñëwee daa tënk tarix maanaam diine yi fi nekkoon téere yi fi nekkoon yëpp moom lañ tënk jox ko diine yi fi nekkoon yëpp ñu tënk ko jox ko sëriñ bi itam bi mu ñëwee maanaam mboolem turux yi fi nekkoon tarixa yi lañ tënk jox ko nga xam ne boo jëlee wérdul maaxuus da nga cay fekk lay mbootum wee wérd muy salaatul fatiha nga fekk ci biir lay mbootum wala wérd muy xasbunallahu wa ni'mal wakil nga fekk ci biir liy mbootum wi wee wérd muy saasi wérdu saasir yi muy istixfaar ñetti mbóot yooyu boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ñu ko dajalee téere yee sëriñ bi radiyallahu ta'ala noon lañ ko dajalee ci li nga xamante ne bii moom lañ ko jox soo xoolee jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xam ne noonu la daan xibaara ay saxaabaam seeni faatuwin dégguñu itam keneen koo xam ne mas ko def ku dul sëñ Tuubaa yonente bi ànd na ak Seydina Abu Bakrin ak Seydina Omar ñu yéeg ci doj wa bi ñu yéegee doj wi tàmbali yëngatu yonente bi dóor ci tànkam ne ko dalal ab yonente nekk sa kaw ak ñaari shahid shahid mooy ku ñuy rey ci yoonu yàlla bi nga xamante ne bi wax na loolu ñaar ñaa àndoon moom kenn ku ci nekk dañ ko rey Seydina Abu Bakrin Siddiq jaan ja mattoon màttoon moo wunni mu faatu kon sahid la naa Omar dañ ko rey sëñ bi itam gis nañ ne daana toog am na bis boo xam ne baatu bu jamaha la bind wax ne jiim gi mooy Cerno miim gi di Mor Absolo ayin gi di Abdourahman Lo ñoom ñii ñooy bokk seenu ngan ci àjjana noonu lañ faatoo lim ko def ci taalibe yi kenn xamul nu mu toll bëri na lool ñoo xamante ne dañ leen wax ne seen këri àjjana yaay jàkkaarloo te suñ leen yóbboo ca janaasa ya dañuy gas ba yàgg ñu xool gis ne kenn ki maanaam mi ngi ne ci kanamam kon lool boo xoolee ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gisaatuñ kenn koo xamante ne niru na ko ci niru win wii yonent bi itam kenn lañ wax ne moom la masaray muy Ubay na Xalaf ñi jàng siira xam nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko rey ci xare kadalika sëriñ Touba Serigne Moussa Ka nettali na waa ji Touba nasaraan bi ko fekkoon mu toog mu tegal ko xaalis bi ne ko jaamu ma maay sa yàlla noonu ma ko waxee woon sëñ bi jël mbuus ma dóor ko ko mun ne xam na waaye dama ko mokkul waaye dana tuyaatee mbër ma gaañ ko bañ xëyee ñu jël tubaab ba suuli ko kon gis nañ ne kenn moo masa faatoo ci kanamam koo xam ne danoon xotti war may lislaam te maanaam sabab ba bàyyi ko ci moom te noonu bi yàlla la nit ki nga xamante ne yant bi sallallahu alayhi keneen ku dul moom nag boo xasee dugg ci rey moom rey nga mbooloo mboola sax ñu rey la yow far waaye menn moom lañ gis ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam defewoon mu def ko te kee da daan tëkku yonent bi moom itam di ko wax ne maa lay rey yonent bi di ko wax ne maa lay rey kii itam daa ñëw ne yonent sëñ bi jaamu ma maay sa yàlla sëñ bi wan ko ne doo yàlla yàlla rek yàlla kon boo ko xoolee ñaar yooyu niroo nañ ko lool beneen bi tege tam mooy euh, sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu euh, maa yonent bi sallallahu alayhi wasallam koy wëlbatil xibla bi di ko wax mu wëlbati ko léegi di jublu dina am na ñuy wax ne ci weeru Shaaban la Shaaban soo ko xoolee siin la ak ayin ak baa ak alif ak noon weer woowu ci la sëñ Tuubaa gane jamono ci nisfu Shaaban muy xaaju weer yi ci digg weer wi fukki fan ak juróom ci weeru Shaaban baatu Shaaban bi nisfu Shaaban boo ko bindee mooy at mi sëñ Tuubaa dem ci géej gi 1313 la lay jox tolloog at mi nga xamante ne moom la sëñ Tuubaa dem ci géej gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam noonu la maanaam sëñ bi mbiram noonu muy dëppoo yonent bi léppam itam noonu lay dëppoo ak weeram yooyu boo xoolee weeru rabiul awal ci la gane jamono weer rabiul awal ci la a feeñu weer rabiul awal ci la gàddaay dem madina weer rabiul awal wuy ji sunu borom subhanahu wa taala bi itam weer yi muy gane jamono fi mu boo ko dee xool saa su nekk weer woowu wala weer wi mu tuxu dem béréb sàngam weer woowu boo ko bindee mooy doon at mi nga xamante ne ci la noppalu wala at mi nga xamante ne ci la gane jamono kon loolu boo ko xoolee itam radiyallahu taala anhu noonu yi la ko ci nuroo ni ni ma ko doon waxee sànq yonent bi bi muy gàddaay di dem Madina ci weeru rabiul awal la sëñ Touba radiyallahu taala anhu bi muy tuxu si njaareem ci weeru rabiul awal la yonent bi xaswatu bani nadir mi ngi ko def ci weeru uh, rabiul awal mooy xare boobu sëñ bi itam bi muy dem Mauritanie mi ngi ko def ci weeru rabiul awal dawmatu jandal muy xare boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon xare mi ngi ci rabiul awal weeru gàmmu la ko def sëñ bi bi muy dem Thiéyène ci ko def jàkka ji bi sallallahu alayhi wasallam njëkk a taxawal madinatul ci weeru gàmmu la ko def sëriñ bi ci ñaareelu weer wa ci la ko def muy rabiu saani kii def ko ci rabiu awal te mooy jàkk jumaa ji nga xamante ne ci ci lañ suñu xoolee yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon naa ko ci njëlbeen nga ne maanaam ay ay kéemaanam yonent bi sallallahu alayhi képp la ñu gis koo xam ne kéemaanam ci mbind la sëñ ko ci fekkaat keneen ku mën a doon dañ naa la maanaam alag na ñooña wala def na nangam ak nangam waaye yonent bi mooy koo xam ne ab téere la indi muy mu'jiza muy alxuraanul karim kenn mënu ci indi baat bu mel ni moom kenn mun a indi saar bu mel ni moom kenn mënut a indi aaya bu mel ni moom Sëriñ Tuubaa yi nee na karaamati xattu yet yi sept ton cinq cent kenn mus sa dégg ci àdduna te kenn dootu ko dégg ku bind lu ne tool te ci géej gi la ko bindee bokkut ak lim bindoon laataa muy dem bokkut ak lim bind mu ñëwee sept tonnes cinq cent yi ci géej gi képp te bokkut ak lim sànni ci ndox mi nga gis ne kon ñaari xar baax yi ñoo niroo te mu'jiza bi nekk ci alxuraan te kenn muy kenn munu ko kasaalika bi nekk ci xasida amul kenn ku mën a woy ay woy way ya àgg foo xam ne buñ koy yëkkatee waay yoo ko dañ garab te du foofu dara du sikki ci moom way àgg foo xam ne ñi koy déglu dañuy làmb seen i poste di joxe la ñu war te xamuñ li muy firi amul keneen ko am lu mel noonu boo xoolee kon ñaari benn lañu soo jëlee xasida itam xool ko maanaam sëriñ bi radiyallahu taala anhu maanaam alxuraan boo xoolee ni nga xamante ne noonu la demee te mooy lim dëxëñ lépp boo xoolee moom la sëriñ bi làmbal xasida yi ay ay alxuraan la koy tàmbalee. ay ñaan lay doon ay salaato salaatu na nabi wala waaraate ay xuppe daanak benn la ñu ñoom ñaar amul lenn loo xamante ne wóotale na leen ni ngi noonu soo jëlee gana ak yonent bi sallallahu alayhi jamono mi ngi ko defee makka ni ma ko wax woon yëf yi dafa toftaloowul makka la ganee jamono baatu makka sëñ bi ganee jamono mbàkke makkata ak bàkkata boo xoolee benn lañu te mbàkke noonu lañ ko daan wax kadaalika turu yonent bi muhammadu lañ ko ak ahmadu sëñ bi itam Mouhamadou ak Ahmadou amul keneen ku fekk si yonent bi ci ñaari tur yooyu ci jege ko bañ lay wooyee Mouhamadou wala Mouhamadul Mbakki yu ngay wax wala nga ne Ahmadul Mbakki yu bu dee yonent bi itam Mouhamadul Makki wala Ahmadul Makki ñaari tur yooyu képp la am yonent bi képp la ñuy jël itam laaf ko ci yàlla di wax xaa rasulullahi sëñ Touba képp itam mooy jëmm joo xam ne fu ñu ko laafee ci yonent bi lañ saxaaba yi ànd nañoo ak moom fu ne jaar nañ fa ñi fi jaar ñëpp amul kenn ku ñuy tudd tudd yonent bi sallallahu alayhi ne fu ñu tudde saw bi kooku amut yonent yi fi jaaroon tam amu ci kenn ku ñuy tudd turam di tudd yàlla amut kon doon na ko foofu ci wet gu demee noonu soo xoolee itam euh, niñ koy waxee woon sànq maanaam euh, yonent bi sallallahu alayhi nit ñu weex ci lañ ko yónni woon sëñ Tuubaa itam radiyallahu ta'ala mën nañu ci ñëpp lañ ko yónni waaye nit ñu ñuul ñi ñoo ci ëpp maanaam xéewal te ñaari yii képp la yàlla bind ci xeeti nit ñu weex ak ñu ñuul yonent bi la seddee woon ñële sëñ Tuubaa mu sédde ko ñii yonent bi bi muy ñëw boo ab arab tekkiwut dara ndax force yaa ngi fi ñu jàng histoire xam nañ ko muy romain yi ñoo tekki woon booba ak perse yi byzantine yi ak yooyu ñoo daan falu ñoo daan moom àdduna waaye naar ma arab yi moom doonuñu woon dara yonent bi ci lañ yëkkati ko ba am gëdd gii ñu leen jox léegi sëñ Tuubaa itam bi muy ñëw foofu la fekkoon nit ku ñuul amul benn cër benn wàccuwaay ci àdduna buñ ko joxoon tey buñ demee bay woo Sénégal ak ay réew yi nekk feek di leen kii ak taqadir loolu lépp ci Sëñ Tuubaa lañ ko amee kon boo xoolee ñaar yooyu ño maanaam amul kenn ku ko ci gëna a niru bi sallallahu alayhi wasallam noonu yonent bi képp mooy yonent bu fi jaar te alagul ay nitam Sëñ Tuubaa képp mooy jëmm joo xamante ne wat na ba mu àgg ay nitam ba mu noppee daa jéggal noonu yonent bi daa jéggal noonu ku ca alku nag yaa ko topp di def say yëf ba la la cay fekk fekk la ca waaye moom daa jéggale kii tam dafa jéggale keneen ku mën a doon nag maanaam boo ko toppee ma àgg fayu na wala rey nañ ko waaw bi sallallahu alayhi tam yàlla daf ko waxoon ne maa kaana llaahu li yu'adhibahum wa anta fihim yàlla dane ko du mbugal jaam ñi li feeg mi ngi ci ñoom wa maa kaana llaahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruun du leen mbugal itam li feeg ñu ngi jégglu yonent bi ne su ma demee bàyyi leen fi jégglu ngir xeet wi bañ a yokkat Serigne Touba itam la yàlla mayaat njaboot goo xam ne duñu yokkal mukk ci yërmande yàlla taalibe bi mel ni man gën a sàggan ci taalibe yi soo ko waxee da lay mën a waatal ci yàlla ne la àjjana am naa ci yaakaar ak lu mu mën a nekke du yokkat ci yërmande yàlla te yàlla nee na ku yokkat sama yërmande du dem àjjana kooku dindi na ko ci ñoom yonente bi képp moo amaat loolu ci aw xeetam ñeneen ñu dul ñoom tiit nañ seen digganteeg seen borom ba nga xamante ne xaw na leen a yokkal loolu seen seen borom waaye ni man mbaa mu tane ma maanaam ba nga gis ko mu yokkat ci yërmande yàlla amut koo ci gis xel mu dal lay am ci digganteem ak yàlla ndax sëñ Tuubaa kooku kon moo moo ci doon waat yonent bi sallallahu alayhi wasallam niki noonu itam yonent bi mu aw xeetam ñoo gën ci xeet yi nañ jël taalibey sëñ Tuubaa liggéeyub lislaam bu mu mën a doon bu mu mën a doon taalibey sëñ Tuubaa ci man bu dee alxuraanul karim ñoo fi ëppi kaang bu dee jumaa ñoo ko fi ëppale bu dee joxe ñoo ci man ku mën a doon bu dee def lu baax nañ xool koor gi ba mu àgg kooy gis muy toggi ndogu di yóbbu ci ñoon la ko royee koo ci gis muy naafilaab kaamil ci ñoon la ko royee ka ko toppee ba mu àgg lenn lum yam ak keneen amul lu waa këram yam ak ñeneen amul ni nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la wuteeg ñeneen lool itam mel na moom képp moo ko doon yonent bi képp mooy koo xam ne itam fu mu mas a nekk ahlu lu nekk ak moom sëñ Tuubaa itam tukki bi jéeri ji fu mu mën a nekk mook ahlu badrin ñoo nekk bu dul benn yoon du ñaar leeral na ne ahlu badrin léegi lañ fi jógee te loolu itam am na ay cëslaay loo xam ne ñi mu ko doon waxal am na ci lu leen leer naññe danaa ci nettali benn xissa boo xam ne ku ñuy wax mustahin seex lay al kumlayliyu mi ngi dëkkoon Mauritanie nitu yàlla la woon ku mag ku bëri woon xam-xam keneen ko ko doon dinga nag du ma tudd turam ndax daa bëri ak njaboot te na leen mën naa dox ba fa waa ji da koo gis muy def saa suy julli saar yu gàtt yi képp lay jullee mu ne ko yow de nitug biddaa nga ndax yonent bi daawul julee saar yi ba werante jaag moom mu ne ko léegi juba wuñ ci maag yow kan la ñuy seet mu attañu su dee nitug bi daa la ma tuubal sama su ma doonul nitug bi daa ma baal la ñaan yàlla boo leenu jéggal kooka ne ko seetal ku la neex mu ne ko ndax sëñ tubaa doy na la mu ne ko sëñ tubaa doy na ma te boobu sëñ baa ngi njaareem mu ne ko kon bàyyee naa la lool yow sax yow demee njaareem laaj ko ndax man ci biddaa laa nekk wala nekkuma ci biddaa waa ba am yitte njaareem ñëw fii da xelam dem ca loolu mu ñëw ci kër gi niyu taalibe fi nekk xamuñu ko borom xam-xam bu mag la kuñ weg la foofa jox ko war ma mu bëgg a gis sëñ bi kenn faalewu ko ndax kenn ku ne yaa ngi ci sab liggéey mu toog di toog di toog ba mujj mu daan ne man daal maa tooñ sa bopp man mi nga xam ne borom xam-xam laa alxuraan ak sunna nekk fi may ñëw naan damay seeti borom xam-xam ni man di ko di gàggat di ko joma xaaral ma jóg dem fi mu ne bëreet bay jóg am ku génne ci biir kër gi ne ko diw mu geesu mun a kaay wuy sëñ Tuubaa mu ne ko ñëwuma ma ci moom soxla waa ji ne nacc ci loxoom bipp ko bi mu ko bippee te kooku daa amoon jëmm nee na bi ma bippee gëm naa ne su ma demutoon dana ma dóor nee ma topp ci ginnaawam mu yóbbu ma nee na laataa may toog sëñ Tuubaa joxañ ma ne ma seex mustahin al kum lay li yu sunni yu la du biddaxay te loolu ca Muritani la woon ne ko sunni yu la du biddaxay ne ko nituk sunna la du koy topp biddaa nee na mu jaaxle lool daal di àgg suuf sëñ bi siggi ne ko te yow sax day abu zarinil xifaar yi mere na la abu sarwi xifaay ci ahlu badrin la bokk waa ne ko lu ma ko def sëñ Tuubaa ak xasida badrin ñëpp ti bindoo ko ci mu ko bind naa ko ci sëñ Tuubaa ne ko bindoo ba mu àgg fekku ci abu sarwi xifaay ndek da ko fàtte kooku kooku mi ngi jokko ahlu badri ndax abu sarri xifaarin ko ci kanam Sëñ Tuubaa ba Sëñ Tuubaa jot lik ko te loolu ñi nga xamante ñoo ko saxal téere yi ñu bindee Mauritanie yëpp indi yooyu kon jokkoo geeg ahlu badrin ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci moom képp lañ ko gisee mel na moom itam la ñu gis maanaam lislaam diineem li nga xam ne moom la doon tasaare moom yante bi sallallahu alayhi wasallam jàll ba ci ay noonam yëpp nga xam ne ay noonam yëpp mujj nañ dugg ci lislaam kasaalika sëñ bi tey boo xoolee li tuub ci der bu weex li ci ëpp ay français lañu muy ñi nga xamante ne ñoo taxawoon ne maanaam wooteem bi du du du fi jàlle kon yaakaar naa ne euh, ba tey ci gàddaay wi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy gàddaay gileem la war jëm Madinatu Munawwara Sëñ Tuubaa bi muy dem Mauritanie gileem la war ànd ak Seex Sidiya Baba yonent bi képp moo mos a gàddaay war gileem ginnaaw ba Sëñ Tuubaa ko tollante keneen ku moom dañ koo dugal ci oto wala ñu dugal ko ci gaal wala ñu jiital koo ki xeer muy kii ba ba génn dëkk ba di dox ba dem fa mu jëm kon soo ko xoolee itam seen woote win benn la ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jaadilhum billati hiya ahsan yonent bi lañ ne ko wooteel sa jëme sa yoonu borom ci xikma ak waaraate wi ma mooy lañ doxal sa xel len lu nekk nga dugal ca xereñ ba dugal waaji ci lislaam waaye bul wootee ci fitnaal nit ki sëñ Tuubaa itam woote boobu moom la indi gis nañ ne itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay noonam mujj nañ ko seere am na koo xam ne ñëw na seet si ko ci yéefari ba mu delloo dafa wax ay nitam ne leen gisuma benn buur bu tedd ni yonent bi tedd ci saxaabaam gisuma kenn koo xam ne bëgg nañ ko ni saxaaba yi bëggee yenante bi su tuflee wala mu ñandu dañ koy jël di ko diwoo seere soos nañu ko seere loon tam damaa xamul Paul Marty la ñi ñi jàng tubaab xam nañ ko wala Merlin am na ci ko seere ci sëñ tubaab ba ne sax sëñ Tuubaa moom la gën a naw ci yenante bi sallallahu alayhi wasallam seere bi mi ngi ci archive nationale yaakaar naa ñi nga xam ne jàng gëstu nañ histoire te jàng ci wàllu woowu dañ ko xam kon day mel ni euh, loolu daal mooy li nga xamante ne bii moom lañ ci tënkoon li ci des ñu bàyyil ko laaj bi di jégalu ñëpp amoon nañ yéene nag mu gën a leer wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.